nee na ndax ni mu tànne siyaar bi nee na mbooloo bi bari na lool waaye dafa xam ne ginnaaw njabootu boppam fi mu nekk nii ñoo nekk nii te ëllëg nee na sëñ Tuubaa yéen la koy laaj ëllëg moom mii la leen di laaj ëllëg nee na moo tax mu bëgg leen teg ci kanamam balaa ñoo àgg foofee sëñ Tuubaa sëñ Muntaxaa mooy mooy sëñ tubaa nee na koy lu waay bëgg naka sas addiyee ji nag nee na bu kenn yéem bu kenn xeeb lu waay man na ko ci def te fas ci la mu bëgg yëpp te xam ne ñun daal la Samba sëñ Samba Diop Samb waxoon Sëriñ Tuubaa ay lantinoor lañu ñu segg diw duñ ko téye duñu téye diw bu ñëwee rek day jàll nee na Sëñ Tuubaa daal ni ko ma Massamba Diop. boo lee day lantinoor. mbay ndaam Samb. mu ne ndaam Samb mooy dencukaayu diw. dina leen dencal diw. ba fa diw amee njariñ ba mu jox leen ko. nee na kon li ñuy def nii. ji rek la. nee na dañuy góob après. nee na kon lu waay ji. na tey la nga ji. ngay saxle kon nañ ci góorgóorlu bu baax. nee na loolu nag ci pas-pas la aye ki joxe dërëm ak ki joxe junni ak ki joxe téeméeri junni pas-pas si la ñu rawante nee na ca pas-pas ba la ñu rawante kon nañ sant ñëpp gërëm ñëpp ñaan yàlla ñu dejeeg tawféex sëñ Tuubaa ak ngërëmam aajo yëpp faju lépp jàkk lépp jub yaa sidi maamoonu yow alaaji ginnaaw kàdde ak soññe yi nga xam ne sëriñ Mamour Bousso al imam defal na ko fondation Jaalibatul Maraaxib ci foofu la mbooloo mi jug dëgmal barab bu tedd bële di Touba ay waxtu yu néew ñu egg ci Touba bi ñu demee ba toll ak jannatul waa sëriñ Mamor Bousso al imaam wàcc na def taxaw seetlu ndax mbooloo mi yépp egsi nañu si noonu lañu dëkkmal sa barab bu sell booba di jumaay Touba def ko ab siyaar ba jàllaale sa daaray kaamin jàng fa ay xasida def ko ab visite daal di siyaare barab bu sell boobu nekk biir daare kamin di barabu sëriñ Abdou Lahad Mbacké ibnu sëriñ Touba ci noonu lañu bàyyeekoo jumaa ji dugg seeni oto dëgmal fële nga xam ne moo di Daaru Salaam ngir fekki fa ab xaritam magam soppeem sëriñam di sëriñ maam Cheikh Anta Mbacke porte-parole Daaru Salaam di doom sëriñ Mamoun Mbacke mu tatakal leen dalal leen ànd ak ñoom gunge leen ba résidence Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ngir ñu siyaare sëriñ Muntaqa Mbacke bi ñu egsee ñu dalal leen sëriñ bi jën ñu siyaare ko mu jox leen kàddu soññ ñi ngi sant bu baax Mbacke di la jox suñu bopp adduna ak àllaaxira ñoo ngi àndal ñëpp mbooloo bi ñu àndal ëpp na yi waaye ñëpp daal ñu ngi lay jox suñu bopp te di la bëggee bu baax te lañ la waxoon ci njaareem ji rek lañ la waxoon ci njaareem ji mooy boo soxlaa ndaw yu bar saq barsax tàmbalee suñu jëmm yi ndax jox nañ suñu lépp desewuñ dara ak bëgg daal yow lañ ko def mbag te jaar la ko ci jëmm ji loo ñu war ñaan ñaanal ñaanal ko jëmm ji mu ñaanal ñu ko ñun ndax moom la ñu roy ci lii moom la ñu roy ci lii ñi ngi ànd ak ñëpp nag Bambilor ak li ko yëpp ak taalibe fondation Dialibatoul Marakhib yëpp ñu jiital jëm di am saw ni am di saw ni mooy joriñ ji ñu ngi sàkk nga ñaan leen ñoom ñëpp soxna yeeg góor yàlla yeeg ñëpp nga ñaan leen baax mbàkke ak bëgg daal lañ ko def lool ñu ngi lay bëgg di la kontaane lool lii waajuñu ko ab yëg-yëg rek la boo xam ne dañ ko yëgaloo ñun xam ne lu gis sa jëmm ji gis sa ko daxal ñaar ñu nag ñu jekk addiyee te addiye ci àgg ci ay milliards wallahi yéen lañ la ko mbàkke waaw sëñ Mamour sëriñ bi dafa wax ne jërëjëf sëriñ Cheikh Anta mii leeral na ko lépp and ngeen ànd ak moom na ngeen xam ne sëriñ Cheikh leeral na ko lépp sëñ Cheikh nag dafa xam ne moom mii mooy Serigne Touba moo tax mu ànd ak yéen ñii de ak njabootam ba ci kanamam ngir jébbal la boppam di leen di gën a jébbal boppam ak njaboot gi mu àndal lépp loole na ngeen xam ne sëriñ bi toog loolu sedd na xolam guy waye dal na am xelam waye ndok bi ngeen and ak Serigne Cheikh mi ngeen top ci gannaam and ak mom ci liggéey Serigne Touba bi kon nak fu ngeen mën nek na ngeen xamne mom ngeen fa nekkal day fassiyene fedel ay laxasam rek and ko yeen and ko yeen ba faw di len ñaanal suñu borom ñu ban dajje tawfiq Serigne Touba seen lepp gën di yomb seen lepp gën di yewen seen lepp gën di barkel na ñepp tàllal seen lox bismillah ñaanal len sinonu ñu wëlbatiku deggmal fa li nga xamne moy daru salam wuyuma yow sawaaji siyaare na siyaara na Daaru Salaam Daaru Salaam waaja dem ca safarul xurooji ñu màggalal mu sawaral xaraaji